acca mbokk internautes yi ñu ngi leen di ziar contentement ak mbégte la ñuy am chaque jour ñu àndaat ak yéen seen émission Mara chaque jour ak kañuy dalal waaye moom kenn du ne guleet ndaxte dafa taamu fi nga xamante ni di Dakar instant Serigne Khadim borom guy gi borom tawfeex waaye itam borom Thiès benn dëkk ñaari gaar encore une fois ñëwaat waaye itam gëjoon na génn lool nag tey nag mu ñëw fas yéene def ay révélation yu am solo ca la muy yëngu ak produit yi nga xamante ne mi ngi koy jox doomu aadama yi waaye itam ñu ngi ciy gis seen bopp Serigne Khadim borom guy gi borom tawfeex ñu ngi lay ziar ñu bàyyi la nga nuyoog ñi lay bisimilah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp ñuy seetaan ah, di ziar ñëpp di nuyu samay waajur ah, di nuyu sama sëriñ sëñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi ah, di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax nag sëñ Xaadim a ngi ni xëy na gëj nga koo gis waaye tamit nekkoon na ci roqam di liggéey mm-hmm. waaw loolu moo waroon loolu macha allah hmm. Aïcha bu ñu la gëjee gis yaakaar naa ne ak euh, mbokk internet yi lay seetaan yaakaar naa ni depuis confrontation bu Bijou Ngoné hmm. nga gëj a génn hmm. waaw depuis boobu la ñu génn waaw lu waroon loolu nag nekk suñu roq liggéey ndax parce que des fois boo génnee ci dara nit ñëpp song la day jaadu nga nekk sa roq liggéey. Mhm. waaw ba nit ñi kontaan nga doog a mën a génnaat. macha allah waaw Aïcha nga defoon fi émission bu tàng ci wàllum confrontation ba biñ koy seetaan. Mhm. donc maara yi bari woon fa lool waaye itam nga ñëwoon andi say bagage lu ci mel ni mooy bant bi. mooy mhm. yokkal bi. keneen ak keneen andi ay bagages am ban jàngat nga am ci émission boobu balaa ñoo tàmbali. waaw jàngat bi ma ci am rek mooy loolu dafa baax ndax parce que dajale sëriñ si waxtaan ak ñoom ku nekk génne xam loolu dafa baax. sa vraiment keroog tamit kontaan naa ci trop. Mhm. ah bi ma gisee ñëpp toog sama naw lay toog vraiment ku ci nekk génne xam-xam. Mhm. sa la nga génne xam-xam la. Mhm. loolu dama ci dama koy kontaan dama ciy rafet lu baax. lenn donc moo moo ma ci naqare woon mooy ki woote woon. di wax waaw mooy sa Moustapha Dramé. Ah, di ci wax wax ju ñaaw. koku dal moo ci nakari won waye dama japp nak nit ku nek ak ci tollu tolluwaay rek bo léegi jotoo leen déggante dedet man awuma jotam tax man ma ngi sama roku di liggey mhm, parce que ñu bari nañ mustapha drame dafa wote pour yak ñi naan dafa wote pour pour tek len ci yoon xam nga aduna biñu nek jamono ji nek amna lo xamanteni bokoy def mhm. chaque jour di nga gis ko xamanteni du bëgg li am wala du bëgg nga dem wala du bëgg nga toj dara mhm. ndax parce que bu toge ni kep ku dem di yok awra dafa aram wala képp ku dem xawma nan ak nan la ko waxee wax joo xamante ni tegginuwul am mm-hmm. na yoo xam baaxul ndax parce que bu nee képp ku dem du yokkul sa awra dafa araam wala maanaam tamit rab ak jinne mm-hmm. bokkul wax ju ñaar wax ju xamul la ndax parce que ku ñu xam xam ne si loolu lañ xam mm-hmm. am na si wàllu rab yooyu dañ ko xam maîtriser ko bu baax xam ko suñu borom dimbaluñ ci duñ ci gan kon bu buñ nee rab ak rab mooy jinne jinne mooy rab benn la loolu kenn ko dindi nañu woo ku ko dindi kenn du ko dindi mm-hmm. sa mooy am te lu wér la kon loolu mu wax naan amul mm-hmm. moom day kii bu dee tamit yokk awra bi am munta ne day nax boppam mm-hmm. ndax moom fekkee moom tamit dafa gàttale na ñëw ma yokkal ko li may wax de fekkee dafa gàttale mu ñëw ma yokkal ko <laughs> ndax parce li may def lu wóor la lu wóor la uh-huh. sëñ xaadim li muy def lu wóor lu wóor la ndax parce euh, gis nga galañ képp ku ci tànn bu ma la yokkalee yàlla nag mooy nangu lépp lépp yàlla suñu borom la du ma ndamu ci dara du ma bàkku ci dara mhm. waaye képp ku ñëw ma diggaaleeg yow incha allahu rabbi dinaa ñaan yàlla ba yàlla may ma ndam ci loolu sa jàpp naa ne boo dikkee di am ndam mhm. ci wàllu muy yokk awra mhm. muy li nga xam ak yeneen ak yeneen dafa mel ne léegi réew mi moom ñëpp xam nañ la ci waaw xaadim ndax parce nit ki ñi ma ci ñi ma ci liw bitim réew dafa la macha allah li waaw bañ la fekkee Thiès moo xam nañ ne sant nga yàlla. waaw vraiment lii ba nga ko doonee def. xëy na dañuy dolli rek ñu mhm, leneen rek waaye moom sant nañ ci foofu mhm. sëñ xaadim moom a ko xamee ak sëñ xaadim yokk awra mhm. képp koo xamante ni gàttoon na tey ji kat ngay lëmbee soxna yi kontaan nañ. Mhm. gars yi kontaan nañ. Mhm. sant yàlla nañ. macha allah mais yokk awra bi ci côté góor la amul côté jigéen wala. an kay def nañ ci yeneen ak yeneen ak yeneen. après dinañ ñëw. Mhm. am na yoo xamante ne après lépp nañ ko leeral. ay produits yoo xamante ne après yëpp nañ ko leeral. nit ñi xam ci. waaw ne sëñ Xaadim ci gàttal da nga gën a gëstuwaat mbir mi. waaw xam nga mu lu moo waraloon ñu tëju woon lu yàgg. ndax parce que tamit lii mooy suñu liggéey. lii lañ ñu yaakaare suñu génnee lii lañ ñu ne ñu di nawee kon tey jii yoon la tamit ñu toog benn instant tëju mhm. wala dem gëstuwaat leneen loo xamante ni nit ñi dañ koy gën a soxla mhm. liy dimbali nit ñi ñu tegaatal leen ko Aïcha am na solo luy dimbali nit ñi ñu wanaat leen yoon ah. bu baax bi comme ni ko sëñ Xaadim waxee mhm. waaye ba tey balaa ñoo tàmbaliwaat ci waxtaan bi ba léegi dañuy gën a xuus ci li nga xamante ne mooy wàllum rab ak wàllum jinne rawatina wàllum rab sonal na xale jigéen ñi lool jamono jiñ toll waaw wàllu rab moom sonal na xale jigéen sonal na góor ñi ndax parce que rab dafa doon loo xamante ni mooy li may wax rek des fois nga dégg koo xamante ni day wax ah ma kenn xam-xamam mhm. waaye dama jàpp ne am na loo xamante ne bu su bu dul sa domaine waroo cee dugg ndax parce que sëriñ léegi boo wax rek mun la damay faj rab mhm. damaa amee jinne sa xamuñ lan mooy jinne mhm. xamuñ lan mooy rab yàgg naa ko wax rek képp ku xam bëgg xam jinne wala bëgg xam rab ñëwal ma yóbbu la ci àll bi foog ñu yóbbu waaw fa ma leen yóbbu am na faneen fu ko yéeme xam nga foofu waxoon nañ am na beneen kii waaw kii euh, yoon bee xawoon waaw loolu la képp ci bëgg leer ci kàttanu si borom boo dikkee boo amee rab bu nekkee sa yaram boo dikkee ñu dindil la ko mhm. Cheikh yéen ñi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel partout dans le monde dégg nga xamante wax na ko képp kuy jigéen baa góor wala itam ngay euh, xale ku ci am ay rab rek euh, boo ko seetsee yaakaar nañ ni sa ajo dina faju ay co ñu woon nañ fi itam ñu gisoon machallah nga yor ay butéel yoo xamante ne su ma juumul am na lu muy yokk ci ay góor évolution beeg pot yi nga xamante ne ñu ngi koy gis karité la mooy nuróol de pot yi waaw karité la lépp karité lañ koy liggéeyee mhm. boole gàncax yoo xam te ne bëgguñu tudd turam ndax parce que am na koo xam moo ngi yor bigam ak fooyam mhm. di bëgg a jël lii pour lan pour naxaat ci askan bi du xam lépp mhm. loo tax dañ leen di wax loolu rek karité mhm. la bu ñu jël ak yenn secret boole ko koo xam da amee hémorroïde sonal la hémorroïde kii moom bii ngay jël bii moo gaaw si hémorroïde hémorroïde boo ko amee mu tàggoog yow joni joni bii waaw bu dee keneen ki nga xamante tamit moom mooy bii bii nga xamante ni eh, góor gi gaaw sëy di gaaw a jot boppam wala buy buy sëy awra bi tamit du caagin day gàtt mhm. waaye day faible trop bii lay jël mhm. bii lay koy maase awra bi rek jeex na mu am li mu ko bokkul ak bant sa bokkut ak bant yi macha allah moom avii lay doon bu xasee ñëw jeex na mhm. bii mm. benn yoon nga ko bii tamit diw moom boo xasee jël benn pot bi jeex na kon pot bi am na solo de waaw boo ko xasee jël jeex na kii ñu ko jël xam nañ ko ñun defaluñu dara nag toog rek war nañ ko nii mhm. ndax nit ñi dañ koo gis gisati ko xam ko bu baax nit ñaa ngi may seetaan mhm. xam nañ lii mhm. waaw ayca ñi nga xamante ne dañoo nekk ci diaspora bi nooy defante ñoom ci yokk awra gi yokk awra bi mooy comme li ma waxoon rek képp koo xamante yokk awra dalaa yitteel da nga may woo contacter ba mu wooyee def appel vidéo bu ñu jubooyee da ngay def appel vidéo ñu nga tànn bi nga bëgg dimension yi nga tànn dimension bi nga bëgg boo ne lu wér ñu am tur ñu la laaj sa turu papa sa turu yaay dugal mhm. am jat yi ñu def boole ko mhm. liggéey fi nga nekk cinq jours lay am nga gis résultat yàlla nag mooy nangu ñaan des fois nga defal cinq jours du gis résultat fekk am na lu xaw ci moom mhm. boobaa nag ñun dañuy xool lan la bu dee dafa làmboo sarax wala dara ñun ne dafa làmboo sarax dafa sarax lay demee waaye sëñ Xaadim moom yokk awra bi lu wér a wér la lu wér a la wér te yokk awra boo gisee sax ma taxaw ci am na ñoo wax naan sëñ xaadim li muy wax ni tegu ko fenn waa waa feneen ak feneen ko doon def ñu jékki-jékki gis xaadim nga ñëw confrontation def révélation waaye itam nga ñëwaat Dakar instant gën a fësal sa bopp ba tey jii nga andi li nga xamante ne donc mooy ay po yoo xamante ne tey jii ku ko gis dina xam ne sëñ xaadim def na ay investigation yu am solo xam nga euh, soxna si li ma la mën a wax mooy fii àdduna la mhm. ku ci nekk rek mhm. bëggoo ku la raw bëggoo ku la jiitu mhm. rawatina ñun dinaa def dara tax nit fay nit pour mu toog jël téléphone wala jël vidéo dugal wax ci sëñ xaadim lu ñaaw mhm. bari na ci mhm. faalewu ma leen nit ñi nañ wax lu leen neex nañ def lu leen neex maa ngi mhm. liggéey sama liggéey ñëw ma kenn maa ngi sama oto bu baax maa ngi sama kër bu baax maa ngi sama soxna ñëw ma kenn maa ngi liggéey sama liggéey kon nit ñi toog temps bi ñuy toog di wax ci nit jàpp naa war a ko soxor googu non àdduna nag moo demee noonu toll naa jamono ci man kon bu ñuy xam ngeen ci dara tolloon naa jamono yoo xam kenn xawuma dëgg la kenn waxul ci man kon léegi boo génnee ba nit ñi di wax ci yow mhm. ba nit ñi di wax ci yow mhm. nit ñi toog di jël seen temps di def ci mhm. ñu wax waaye ñun ñoo ngi liggéey maa ngi ñaan yàlla képp koo xamante rek ñëw na man sa aajo faju yokk awra bi lu wér la ay wax ay kee daka daan def kii sëñ xaadim léegi du ko def mooy gis nga suñu borom li may def nii bu neexoon yàlla suba suba nga xam ko sa tey ji bu la jaraloon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg allah mun nga koo xam mhm. nit ñi nañ bàyyi wax ji sëñ xaadim lii ay waajuram ñoo ko daan def ay maamam ku ñëw suñu kër gu mag xam ne lii nii du pour hasard mhm. li may liggéey nii wàllu yaanuma ci dama ko donn ba pare dem jàngi ko gën koo maîtriser xam li may def bu baax mhm. ci wàllu ñaan ak nit ki mboolem lépp lu mu bëgg ci wàllum ñaan ci kàttanu suñu borom buñ ci wéeteeg suñu borom def ci lañ ciy def nga am ci ndam mhm. bu dee wàllu sunguf ak ren ci kàttanu suñu borom c'est la meilleure danañ koo xam maîtriser ko bu baax waaw yàlla na mhm. kon nit ñi nañ bàyyi wax ci macha allah ah. ñu mel ne ñu gis ne itam dañuy nemmeeku sëñ xaadim ci sous région bi muy Mali Burkina Faso ak feneen ak ak feneen sa relation ak ñoom waaw jàmm rek la ndax parce que tamit dañuy dem ñun dañuy tourner fépp même ñoo ngi waaj a dem tax Mauritanie ah, foo xam naa fii ak vendredi ci kàttanu suy borom mhm. bëgg nañoo dugg Mauritanie kon képp koo xam ne soxla nga ñu rek mhm. boo ñu woowee ci whatsapp bi si numéro boobu mhm. incha allahu rabbi dinañ la wax fu ñu nekk si Nouakchott bu nga soxlaa nga ñëw fa produit yeeg yëpp dina ñëw bant yi yokk yi nag yëpp tamit dina ñëw bant ñoo ngi dem kon képp koo xamante yaa ngi soxla woon sa xaadim mu taw nga taw koo gis nga koy gis si internet wala fenn télé jàpp di nga ko gis gis incha allahu rabbi si kàttan suñu borom xam nga ay jamono nit ñi da nga koy da ngay woote ba sonn xanaa léegi a dindi defi boobu waaw xam nga àdduna moo demee noonu day toll moment boo xamante da ngay toog xoolaat sa bopp mhm. defaruwaat ndax parce que bëgguma mukk nit ñi tamit ah, di am mhm. di mer ngir man mhm. wala toog soxla sëñ xaadim dugaloo ko sa xaalis di ko woo mënoo koo jot fekk du néglige sëñ xaadim li muy yenn si bopp bee bëri sëñ xaadim da ngay luxus damay luxus non luxusuma luxus moy lan luxus pour ñangoon yi maaraay léegi dañuy luxus non lolou du luxus trian la rek trian trian la seigne xaarim ñukay def bari gis nga xëy na temps bi moo dugg am benn mbir bu yor fi gis nga amna lo xamanteni ay seetaan naa mara bo bo ngeen éviter xoma kun kandé jël benn leget mhm. ñu bënd leget gi am de waaw ñu bënd leget bi mu mhm. jël ndox sotti ci sotti ci ndox waaw am de ba pare tek mhm. ñu ni ndox mi ndox mi du mus dem kooku lu ndaw la rek ndox mi du mus dem tegal gisaat naa tey mara bu ak yeneen ak yeneen da gis léegi ku teg ab jël xaalis di kii mhm. man yàgg naa ko wane samay vidéo ku dugg mhm. man sama site am na ah. ñeneen ak ñeneen yooyu yëpp képp koo gis muy def lu arnaqueur la nit ki boo mënee dara jàpp naa ne nga da ngaa mën dara mhm. muy sa liggéey nga mën ko doo toog naan nangam nii ak nii nii ñooñ dañ ci wut xaalis rek dañ ciy wut xaalis rek que tey jii ci loolu day tax nit ñi xam nga nit ñi dañuy ñëw xam nga nit am na ñoo xamante ne sénégalais lu kii yow bëtam dafa yomb tey jii mhm. sëñ toog na def na benn affaire léegi kii nga nga gis kon yii sëñ xaadim dafa kan nag daw yoon ay jinne mhm. loolu du jinne du dara des fois nga teg safara loolu triant du xam-xam sotti ko meew ak loolu man maa loolu dama leen man maa ko wax mhm. loolu du xam loolu triant la mbooleem képp ku koy def yaa ngi def li nga xamante ne du dëgg trian la tabdil la xeetul wàllu tabdil yëpp Mhm. suñu borom dimbalu nañ ci ba lu bëri xamuñu lépp na dajaluñu lépp waaye lu bëri xam nañ ko ndax lu bëri dañ ko dajal ci daara ji xam nañ ko ah. dañ ko doon fooyee mhm. yu dañ ko mhm. jël baraada wala nga jël benn biteel def ci warga teg ko si taal naan xam-xam la wala nga jël jël xottu kii paquetu suukar yi def ci nen teg ci taal nga ne xam-xam la ah, loolu du xam-xam nañ bàyyi li ñuy def loolu du xam-xam yenn yi bu yàggee yàq deru sëriñ si la. Mhm. ndax léegi est-ce que ba pare tamit. yàqu na léegi koo wax sëriñ si mun la sëriñ nangam mhm. nangam. ay arnaqueur lañ loolu la ñuy wax ndax parce que da cee bëri xoolal duggal si internet bi duggal si TikTok bi. Mhm. ba pare sëñ Xaadim léegi sëriñ bu nekk am nga journaliste préféré wala géwél préféré bu lay waxal sa yu baax yow am ga ko. yalla suñu borom. macha allah duggal sama page TikTok sama page lepp yalla suñu borom man dunduma yenn yi. Mhm. man xam nga laa dund suma ma. diko jox ab géwal wal diko jox kenn jox ko sama njabot hmm man tey maaraay da ngay may ben benn woykat or pour mu way la. soxlawuma lool. Mhm. ay nama way ay nama way ak yoy mhm. soxlawuma lool. xam nga luma soxla. na nit ki gis ma. am cofeel am yaakaar bu ñëwee sëñ xaadim si kàttanu suñu borom li mu bëgg dina ko am mhm. ma dikk def sama yëf def sama ñaan yàlla suñu borom jox ko mhm. man loolu laay def da nga réservé wu man sàkku man dem di kii comme nit ñi la waxal wala nangam ak nangam déedéet mhm. ku mu neex nag mën nga koo def waaye man defuma ko man li ma choisir mooy li may def su ma amee dërëm bu may jox ni dem jox sama njaboot lu ma am na pour dimbalee ko nit dimbalee ko nit sa yàlla rek tax Mm-hmm. waaye yenn puukare yooyu xam xajuma ci mm-hmm. yenn puukare ñu ci bëri day am luy tax ñu ànd ak yow rek mm-hmm. sa tur sa poos rek mooy tax ñuy ànd ak yow waaye du sa xam-xam du sa dara boo leen wéetee mu saaga la man a sëñ xaadim ci li may def mooy mhm. ñaan yàlla suñu borom lu ma am dimbali sama njaboot ak samay waajur amoo géwél amoo journaliste dara sama yàlla suñu borom déedéet luxusu ma mhm. tabdilu ma def ma dara fan yi aussi ñu gis ki nga xamante ni mooy Fa Mbay mooy euh, soxna soosu amoon yaram ba Waly Seck jàppale ko sëriñ su bari di ko faj ñii naan waruñu koon fajee nii ñii naan waroon nañ ko fajee nii ndax tellement que ni ah, boo xoolee yaram bi yëpp dañ ko doon exposé ci réseaux sociaux yi tamit mu mel ne léegi faju sëriñ si sutura amatu neex sëriñ si mhm. ñaan mhm. ñaan amul lu mu mënta faj mhm. ñaan amul lu mu mënta faj waaye nag nit ki boo nee mu feebar di jigéen rawatina muy jigéen da koy suturaal dama ko mën a faj man sëñ Xaadim mën naa koo faj jaru may woo ay caméra ñu may tiim est-ce que nekkul preuve la déedéet loolu du preuve xam nga lan mooy preuve mm. dikk nga ñaanal naa la faj naa la wér nga preuve baa ngi noonu yow mi yow mi ma faj mm-hmm. wala say mbokk dinañ génne diw moo ko faj mm-hmm. Mm-hmm. waaye di ko wone àdduna ñëpp ñaata bët ñoo koy xool tey jii man sañ Xaadim ma xool xam ne kii nii mën na koo faj su ma neexee ma def la may def teg ko dara day jéem ba sonn waaye dara du dek du dem ah, loolu am na ah, am a am en pagaille sa secret yooyu moo ngi man tey jii nga jéem di def dara mu leerama yaa ngi def dara ma jéem joggi ci la ngay def du antu mukk da ngay jéem ba sonn du antu. ndax bët bi nga ko gis tax non pas naa ko waaye am naa lu ma def loo tax man la am na loo xamante ne warul jigéen la dañ ko war a wormaal. Mhm. nit ki bu fekkee mën ngaa faj am na beneen fànde moo war a faj. Mhm. waaye du loolu. Mhm. waaye léegi nit lu muy def rek woo journaliste taxaw caméra yi ngay sotti nit ki saafara rawatina ci wàllu rab léegi jamono ji toll nii dangay gis koo xamante ne léegi den day faj ay rab. di sotti nit ñi nit ñi yuuxu naa hmm. nangam fekk déedéet loolu ay jamono ci Thierno Moulay lañ ko doon gis waaye léegi bari nañu ko léegi dafa bari léegi koo gis ko xamul tax Thierno Moulay xam du du kas du moom kase hmm. Sénégalais ñoo mel noonu lépp lu ñu gis nit di ko def ñu xam ne lii am na lu ciy ruus mais est-ce foo ñu def noonu pour gën a fësal seen visibilité Sénégal ñu naan fii am na sëriñ bi am na euh, sëriñ diw xam nga gis nga nit ki am na leneen noo war a mën a fësale hmm. man sëñ Xaadim xoolal samay vidéo doo gis mukk ma tim di ko faj mhm. wala naa pourtant mënoon naa benn preuve boo xam mënoon naa ko nit ñëw di ma yokkuloo awra ma ne ko dama lay filmer mhm. sa pourtant bu feebaree bëgg a faju da koy nangu mhm. ma taxaw filmer ko dugal waaye amul sens léegi naa wax xaawi sutura kooku amul sens nit ki lépp sutura la sa ñaan tamit sutura da cee am ñaan dafa am làmboo sutura nit ki bu dikkee ci yow woo la téléphone wax la jàngoroom ba mu ñëw ci yow yow moom yàlla suñu borom. Mhm. defal ko sa yàlla rek tax. Mhm. mu génn dem kenn bañ a xam lu fi wut waaye ku ñëw di faju nga ne ko non dañ lay filmer jël image am tas ko ci ah, àdduna bi que léegi naa am na ñoo xamante ne dañ naa dañ lay filmer boo d'accord kenn du la faj. du yoon am na fi tamit. du yoon mhm. kooku boo nangoo tax sëñ bi faj googu du an du am. nit ñi nañ bàyyi nañ delloo xel suñu borom. nit ñi am na loo xamante ni baaxul. nañu bàyyi loolu képp ku ñuy faj naan dañ lay filmer mhm. caméra def na dugal si internet bi nañ bàyyi loolu mhm. yow boo nee ab sëriñ nga ab ñaankatu yàlla mhm. sutura daa war a njëkk ci yow ndax boo amul sutura munoo ñaan ba mu nangu sutura mooy lépp mu mel ne léegi seen vie kenn considéré leen yéen ñi nga xamante ne mooy maara yu ci ëpp duñ na ñëpp waaw mais chaque jour rek majorité bi moo koy faral di def ku ci koo ci wax maara wala dañ lay woo extérieur maara bi daf ma truande maara bi maara bi ah. loolu est ce que na tamit loolu bëri na ci ampagaay bëri na ci waaye tamit foofu tamit dama fay lancer tout de message mhm. mooy li nga wax léegi ni sëriñ si léegi kenn tegatu leen fenn loolu dafa mhm. am ba tax na tey jii nga diggaaleeg nga nekk bitim réew diggaaleeg sëñ xaadim wax ak sëñ xaadim mhm. yëkkati sa xaalis jox ko dootoo calculer dara sa xel fu muy nekk ni maaraayu jubuñu dëgg ndax comme dégg nga maaraay ñu rek léegi dootoo may léegi boo wooyee sëñ xaadim mhm. ñaari yoon jotoo ko rek zigel nga ko foofu mhm. trian la trian de dama nangam nangam lii fekk na yooyu yëpp dafa war a mën a jeex loolu baaxul nit ñi mhm. nañ am ci loo xamante ne ci li ñuy def mooy lan dëgg nit ñi nañ jox sëriñ ci respect respect mooy lépp képp nag ku la triandé nga xam ne kii triandé na la moom ak yàlla la mais est-ce que sëriñ saa yu sóor loolu tamit waaw xam nga ak suñu borom xam nga sëñ bi da dëggal ma naan sëñ bi te soxna si mhm. dama ni la am na su ñoo xamante ne xooluñu loolu mhm. ndax parce que li ñuy xool mooy xaalis bi dëgg la man nag yàlla dimbali ne ma xam naa yàlla mhm. gis naa yàlla kon am na loo xam dara jarul ma macha waaw kon boo xoolee sëñ Xaadim viom yow boo buggoo dara loo xam ne dafay jëm ci wàllum euh, euh, célébrité ak yooyu noonu damaa yor njaboot da nga da nga damaa yor njaboot macha allah am nu ma leen yeere kon ñaanuma yàlla mukk tey ji kat di jël lu bon di leen ko jox ñu koy dundee mhm. lépp lu ma leen di jox rek sama ñaq lay doon mais sëñ xaalis bi ngay wax ni maara yi de waaw lépp lu may mhm. génn dem liggéey mhm. nit ki yónnee na ma xaalisam ma liggéey ba yàlla def li muy def bu yàlla nangoo nangu na bu nangu nag ñu xam ne lii la yàlla dogal la moo tax waa Thiès jox la bopp waaw sant yàlla rek si bari na fa lool xam nga loolu yëpp sant yàlla ndax parce nit ki boo dee ndaw nekk si dëkk bi juddoo si dëkk bi màgg si dëkk bi nu mu tudd sëtu lëg daaru Malick Ibra nu mu waaw mooy fa moom moo ngi Thiès moom mi ngi Thiès. waaw moo ngi Thiès moom vraiment maa ngi koy nuyu en passage sa ku baax la ku ma jox cër la. macha allah man tamit jox naa ko cër trop ah déedéet ndax parce que ku ci nekk sa liggéey. Idrissa Ndiaye ak liggéeyam sëñ Xaadim ak liggéeyam. Mhm. ku ci nekk la nga war a lekk ngay lekk. mais li nga wax ni sëñ Xaadim nit ñi xamuñu ko de. nit ñi ah. dañuy lekk lekk sa bos. déedéet amul sens ku nekk la nga war a lekk ngay lekk. loo warta lekk du ko lekk sëñ Xaadim lu mu warta lekk ci nit du ko lekk. macha allah. nit kay toog xoola internet bi ñaata sëriñ dafa nekk nit day toog choisir ne tey soxla na sëriñ toog taal internet am mm-hmm. xool tag tak gis sëñ xaadim mm-hmm. fekk dafa war a woo sëñ xaadim mm-hmm. wala mu gis keneen woo keneen keneen kooku la war a woo looluy wërsëgam loolu mooy gëm ku ne ak la nga war a lekk danga koy lekk man loolu laa gëm kon ñii ñiy arnaqué daal nañ ko baax waaw nañ ko bàyyi ñu xam ne liggéey bi la ñu am mhm. sa liggéey bi tamit nit bu ko sellalee mën na cee am lu ne macha allah bu ko sellalee mën na cee nekk mun na cee dem fu ne mhm.

waaw bii moom tamit comme góor koo xamante ne. Mhm. ci wàllum awra daal waaw. Mhm. gaaw a jot sa bopp mhm. wala sa awra bi tamit day am. nu muy kon bi la ak po bi yooyu la bokkul bokkul ba tey ndox yi xaw na duroo waaye bokkul noonu la dem noonu lay kiiwee. mu mel ne sëñ Xaadim produit yëpp da ko dugal ci laboratoire. waaw non sama labu bopp la rek. sa labu bopp waaw sama labu bopp la fi may liggéey samay garab. laay toog liggéey ndax boo dikkee sama kër. Mhm. xëy na bis dina ñëw dinaa leen di yóbbu foofu. defar nañ ko noo xamante ni fa la ñuy liggéey suñuy garab yëpp. Mhm. bëgg daal lépp lu ñuy jox nit bu ñu xasee ba xase ko. Mhm. képp ko jël di nga ci gis sa bopp. boo xoolee kon ci gàttal sëñ xaale yooyu yaa ngi jàpp ci développement réew mi. Ah, waaw ndaxte tey jii soo xoolee waa Nigéria Côte d'Ivoire feneen ak feneen. dañuy classe gi daal di leen di jàppale waaw sant yàlla rek loolu moom ñu ngi ci sant bu baax a baax bëgg nañ képp koo xamante ne drapeau Sénégal bi waaw drapeau Sénégal wan ni sëñ xam ne xam ne moom macha allah Sénégal lañ ah. a ah, nit ñi fu nekk la ñuy jógee mhm. ñëw faju si nit ñaa ngi ñëw ba tey waaw nit ñaa ngi ñëw ba tey macha allah nit ñaa maa ngi ñëw ba tey ndax parce que gëj ngeen a dégg sëñ xaadim mhm. gëj ngeen a gis sëñ xaadim mu ñëw tax Dakar mhm. kon lépp sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax parce que nit ñi buñ la jubloo ba lay woo fu ne ci àdduna mhm. ku ci nekk di la woo da nga gis ñu koo xam day toog ba woo la bu ba jot la ñi la ba ma la dalay woo ak léegi mat na weer pour bëgg laa jot des fois am ko ma audio ne ma allo sëñ xaadim man la déedéet du moom waaw la ndax nit ku nekk tamit nit la da liggéey rek boo ko sellalee mun nga ciy àgg fone ne te ñoo sant yàlla mhm. nit ñaa ngi ñëw ñii di faju si mhm. ñii di ñaanlu mhm. ñii di wut garab ci lu ne sa ku ci ñëw lu nekk rek dinañ la ci dimbale ah takk sëy takk sëy takk sëy comme jëkkër ak far ak waaw comme yooyu waaw dañ ci dañ ci ñaan yàlla suñu borom mhm. yàlla nag mooy motal lépp mhm. waaye képp ku dikk am koo bëgg ngorowee wala koo ko am da nga koo bëgg pour mu jël la soxna mhm. boo dikkee incha allah nañ jël tur yooyu ñaan yàlla mi nga xam mooy maye ba yàlla may ñu daam macha allah sëñ Xaadim am na secrétaire wala parce que mara yu bari buñ defee émission buñ génnee nit ñi dañ leen di woo lu toll ni weer wala ñaari weer te duñ leen jot déedéet samay nag man maa ko wuyal sama bopp macha allah amoon nañ ko nag waaye nag loolu day bëri mhm. ay jaxase ndax nit ñi léegi mooy li may wax ñu ci bëri mhm. xaw ma ñoo may dégg xaw ma dégguñu moom képp ko ma sa jaar ci man tamit mhm. boo ma déggee baax na am na ñoo xam da nga leen di jël wàllu secrétaire jox la wóolu leen jël say téléphone jox leen jël sa lépp jox leen waaye nit da leen di woo ñu ni waa ma la sëñ xaadim wax ak ñoom ñu yónnee leen xaalis seen numéro hmm? ñu récupérer xaalis boobu yow duñ la wax dara da ngay toog ba ci yàgg jël téléphone boobu woo kooku woo woo la ñi mm-hmm. la ba ma la dalee woo yàgg dugal naal sama xaalis gisuma dara affaire boobu doon lu la jaaxal sa yëguma loo tax nag léegi lépp lépp dañ koo defaraat mm-hmm. dindiwaat loolu yëpp macha allah boo xoolee fa fekkoon ak ñi fekkaat léegi bokkul mm-hmm. kon moo tax macha allah waaw ndax liggéey bi loolu moo tax léegi suñu téléphone ñoo koy wut suñu bopp parce que yi nga wax ni am na au ma ànd ko ko wax waaw képp ku ma woo man ngay jot sama bop man seigne khadim mayor sama bop sama téléphone kuma wo man ngay jot boma ma asan envoyer message buma ko mën lire nako lire ci carton ci borom bu boo ma wooyee jotoo ma xamante tamit maa ngi ci liggéey na mënu maa nekk ci liggéey bi tamit di communiquer communiquer nit ñi tamit nañu xam lolu tamit lu bari defa nga gis kula wo woo bëgg jël ak yow ben temps bi tamit nañ ko xaw xawa metti wa day xawa seen aajo faju ak fi ngeen mënti nekk ci àdduna ndaxte mi ngi waajal tournée yu ama am solo xanaa tournée bi itam dafay ànd ak gëstu goo xamante ne boo ñëwaatee leneen ngay waaw yeneen rek xam nga sëñ Xaadim moom bu xasee ba déplacé ba dem waaw dañuy yóbbu dañuy indi si kàttan si borom mhm. dañuy yóbbu dañuy indi mhm. bëgg nañ daal mooy comme daanaka noonu rek nuyu ñëpp daal di jéggalu tamit ñëpp mhm. waaw di ziyaaraat ñëpp di ñaanal sama waajur góor yàlla bàyyi ko fi may ko wér di ñaanal tamit sama sama waajuru jigéen di ñaanal samay soxna mhm. samay xarit di ñaanal ñëpp daal yàlla bàyyi leen fi jàppal leen bu baax a baax may leen tawféex mhm. di ñaan suñu réew mi muy Sénégal yàlla def fi jàmm yàlla daf def fi tawféex mhm. def fi lépp ndax ndaw ñi tamit sonn nañ waaw ndax ndaw ñi sonn nañ bari na trop bari na trop ndax réew mooy li ma yàgg naa di ko wax réew day làmboo sarax daa mel ni si ñuy wax ba tey daa génnul réew day làmboo sarax xam nga njiitu réew bu nekkee si réew mhm. yoon la moom donc mënu koo génne waaye am na ñu mu mën a jox ñu def sarax yooyu rek suñu ñetti journalistes yi gaañu nañ tey ci campagne bi moo ngi noonu gis nga réew mi sa day gën a tàng nag ma xamal leen élection ah. yii nii réew mi day jaxasoo trop li man maa leen ko may hmm? réew mi tàng lay doon élection yii nii mhm. loo tax képp koo xamante ni yàlla mën na loolu ko mhm. na nga wut lu tolloog ñetti mbuusu galaas nga toj ko macha allah sa buntu kër. Mhm. boo ko defee incha allahu jàmm rek. jàmm ni ci kàttan suy borom. waaw sant naa leen tamit bu baax Dakar instant moom la. waaw waaw Dakar instant moom sa kaw sa kanam la incha allah yeneen voyage ñaanal yàlla rek vraiment waaw loolu moom day am incha allahu rabi loolu moom bëgg nañ ko. ndax Dakar instant moom. Mhm. fi la ñuy yéege suñu bopp. Mhm. macha allah waaw fi la ñuy yéege suñu bopp mooy comme li kii di wax rek fi la bur bi di xoyom xoyome waaw fi la lamp di tàkkee waaw waaw fi la <laughs> lépp daal macha allah daal kon di ñaanal ñëpp daal waa Dakar instant ñëpp groupe bu Dakar instant yëpp mhm. ñoo ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfeex ak gudd fan seen site bi dema dema dema dem ba jur télé bu mag a mag a mag c'est international yal na ko suñu borom bi def incha allah boobaa lépp ñu àndandoo ko itam ndax boobaa mbégte lay doon ci yow cant ak ngërëm ñeel ni leen gis ngeen produit yi nga xamante ni sëñ Xaadim wane na ko fi macha allah donc euh, nee naa ko da ngeen koy woo ci 77 490 54 05 77 490 54 05 bu ko defee seen aajo faju mu ngi waajal nag lu ama am solo waaye itam bu dikkee rek incha allah encore une fois mu ñëwaat ci beneen facette ak suñu mbokk internautes mhm.